waaye moom mu ngi xam xalal bu bari soo mu siree dimbale ñi nga xam ne jullit leen mhm. waaw ak koo xamante ni moom jullit la waaye moom mu ngi am xalal joo xam ne su siree dimbale nit ñi tam mu ngi teg ba xàggal da si lorale mhm. waaw dam loolu laay laajte kenn ku nekk lan moom la ci islam wax jërëjëf euh, soxna Ayda jëf ju baax mhm. ci lislaam dafay am foundation feek foundation ba taxawut yow mën nga ko gisee baax am na ci beneen aspect bu mu baax waaye du ci bëtëb lislaam hmm. maanaam ki nga xam ne duhut jullit hmm. amut foundation hmm. li muy def nag société bi dana ci kontaan islaam ci boppam dana ci kontaan waaye lu tax mu def ko xam nga wax naa la fi ne al umuru bi maqasidiha mbir mi su daganee ba pare la tax nga def ko loolu la seet ki nga xam ne duhut jullit hmm. euh, lépp lu mu def lu mu baax baax baax lu tax mu def ko ku tax mu def ko foofu hmm. foofu foofa la wax ja nekk hmm. ki nga xam ne nag jullit la moom alal ji ba pare du ci def lu baax wala su ko defee du ko defee dafay sonnal boppam moom itam ka muy defal mën naa kontaan de waaye moom du ca am yàlla déedéet parce que yàlla moom forcé mbir yi dajee Mhm. jëf ji na baax mhm. na la yàlla autorise ne na ko def mhm. te ba nga koy defin na yàlla tax feeg ñaar yooyu dajeexuñ loo mën a def doo ca jëlee dara waaw loolu lañ koy tontu def ñu jël ki ci line bi salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam bisimila waaleykum salaam waaw bisimila bisimila na ngeen def yaa ma rek kay na ngeen def. jaama rek kay alhamdulilah. kontaan nañ ci programme bi trop. Ah, alhamdulilah. bisimilah. ah programme bi am na njëriñ trop. Mm-hmm. am naa fi ma ote moo fan nga ote nii. sëñ Ousmane ñu ngay waxee leer na neex naa dëgg daal. alhamdulilah fan nga nekk nii baaba. maa ngi woote Spain. Spain waa kay. est-ce mm-hmm. que. Ah. Mm-hmm. jërëjëf. bisimilah. kontaan nañ ci programme bi trop chaque jour dañ koy seetaan te ñu mi. waa kay jërëjëf. leen yàlla kontaan alhamdulilah. ñu ngi koy ñaanal fan yu gudd ak wér gu yaram. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. ak mujj gu rafet. amin ya amin amin amin ya rabbi baax na ñu waa Spain yëpp soxna Aida ñaan yi it ci la mhm, mhm. yàlla dafa wax benn aaya ci alquran lu jar bàyyi xel la mhm. e, dafa wax ne defal li ma la wax tama tax tama tax te bul seet résolte bi bul seet la muy jur waaw maanaam nit kiy def lu baax mm-hmm. na def lu baax ngir yàlla te mm-hmm. bum seet la muy jur yow def rek moo la war waaye ndax dana meññam du meññ bul ko lijjanti bàyyi ko ci loxo yàlla mi tax jëmbatal garab gi mm-hmm. jëmbatal garab léegi baxil nag meññeen mi ci loxol ki la sant nga jëmbat garab gi loolu alquran daf ko wax ne wa qul fa sayara amalakum wa rasuluhu wal defal lu baax li ma la digal te nga def ko ngir man mhm. soo ko defee man yàlla danaa ko gis mhm. suma yonent bi dana ko gis nit ñu baax ñi ñëpp danañ ko gis dëgg la soxna lii nag mhm. meññet la su ko defee bon ñun waruñoo def lu dut dañuy ñaax nag li ñaaxe la su ko defee war nañoo jéem a yokk góorgóorlu yokk njub yokk dëggu ba pare yokk sellal forcé su boobaa yàlla dana forcé xoli nit ñu baax ñun ñu nangu defe naa am na keneen ku nekk ci laaj salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, ba Ousmane maa del tuwaat alhamdulilah waaw ah, damaa laaj damaa laaj boo sogee julli wàññil télé bi wàññil télé bi wàññil télé bi tuuti waaw wala nga sori ko wala nga sori ko acca bisimilah. dama laajte boo jotee ba war a taayewaat wala doo taayewaat. ah waaw boobu itam. waaw. boo ci jël baax na. waaw mooy ki laajte woon. bu fekkee dafa wàññi. boo ci jël baax na. Ah. su fekkee ne danga nga da nga ne ñeent laa def wala ñett. waaw. jëlal ñett nga jël waaw nga jógaat indi benn rakka. waaw. nga taaye ba pare sëlmal.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 waaw seen programme bi naan ak loolu ñu ngi koy alhamdulilah waaw li ñu na moom mooy ñu traité ñu yokkal ñu temps bi rek di ko defal baax na waaw waaw dafa am lu ma bëggoon laajte moo laajte ki yoo ni dafa am ñetti soxna ñaari soxna yi dem na ba njaboot ak moom waaw benn soxna bi na moom jotu soxna xam moom doom waaw waaw bi demee ba si mujjantalu dundam dafa ànd ak moom si biir ànd boobu mu jël sa biir. mu jël biir waaye léegi bi mu gaañoo fekk ndaw sax xamutoon ne jël na biir. ba gars yi njaboot ga tasee ne léegi li ñuy def mooy dañ koy miraas ndax suñ njaboot gi nekkuñ benn place. dañ koy miraas ñu miraasoo loolu ba loolu passé léegi biir ba door a feeñ. Ah. ñu gëstu ñu xam ne soo sëy ba la amee woon biir ba waaye miraas ba Mmh. Eh. ba kenn ku ne jël sa mmh. waaye léegi bu boobaa doom jooju nag laa laay laaj ne naka la def ak miraas ba nga xamante ni weesu woon passé na léegi yaay ja benn doom boobu rek la fa am ndeysaan donc soxna Ayda moo tax l'islam dafa am lu ñuy tuddee ci anglais précaution mhm. moom la ñuy wax xoddeeku balaa ngaa lakkale mooy précaution su fekkee ne nit dafa gaañu mhm. baxi njaboot mhm. balaa ñoo miraas nañ laaj soxna yi waaw ëmb am na ay màndarga waaw koo ci xam ne euh, reegalam maanaam póotam dafa dafa tëb mhm. wala gis na ci boppam lum nàngam te nàngam su ko defee ñu bàyyi xel biir boobu xanaa miraas bi duñ ci dee xaar benn jigéen ñi ah, summi foofu laay ñëw si bañ summi foofu la miraas amut ah. amut time suñu neexee nit ki gaañu sa ëllëg sañu miraas wér na